dari Quran Imla qalbi Quran Wasli hayati Quran salaamaaleykum mbokk téléspectateur u TFM yi rawatina seen émission ziar ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm alors xam ngeen ne nag ziar ne naa leen di ngeen koy mën a am tous les jours à partir de 21h30 ci weeru koor bi yëpp incha allah dañuy fas yéene dalal suñu ay invité waxtaan ak moom xool li nga xamante ne moom mooy weeru koor bi nan lañ koy dundee waaye nag duma ci wet benn yoon ki nga xamante ne moom laa ci àndal muy Oustaz Modou Fall Oustaz maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateur yi. jërëjëf yaa aw maa ngi lay fay nuyoo maa ngi lay ziar maa ngi nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias di ñaan yàlla su uh, sunu borom yàlla nañu yàlla nangul sunu koor lépp loo xam ne rek jaamu nañ ko ko moom yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf oustaz euh, salallahu alayhi wa sallam euh, li ñuy def nag tey ki ñu dalal si suñu plateau euh, moom nag ñu ngi koy wax monsieur Maguette seen moom nag muy directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar COUD et maire de Malicounda donc monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi. waa maa leen di nuyu yaa awa di leen dalal yaag oustaz Modou Fall di am mbégte bu baax vraiment ci ñëw ci seen émission bi muy émission bu Sénégal yëpp di seetaan. parce que émission bu am solo la ci wàllu waxtaan ak doomu adama yi xam ne ñu nekk ci koor gi ma leen di dalal bu baax di am mbégte jàkkaarloog yéen. alors monsieur le maire fi ma comme je l'ai dit tantôt aussi moom mooy directeur COUD fi ma bëggoon euh, ñëw ak yow mooy euh, nan ngeen di def pour gérer li nga xamante ne mooy la demande social euh, au niveau du campus lu ci mel ni étudiants yi seen ay chambre vraiment seen ay li nga xamante mooy restauration yi ak bourse yi quand même que université à fois dañuy dégg tout le temps day am ay problème foofu. waaw euh... et surtout aussi au niveau sanitaire waaw. voilà donc xam nga centre des œuvres universitaires de Dakar euh, comme centre des œuvres yëpp ay euh, œuvre sociale la ñuy la ñuy gérer envers les étudiants œuvre sociale boo ko déggee mooy étudiants yi ñun ñoo leen war a dëkkal ci pavillon yi ñun ñoo leen war a jox ñu lekk ci restaurant yi waaye bu ñu feebaree ñun ñoo leen war a faj. donc ñett yooyu bànqaas yooyu principalement mooy œuvre sociale en plus nag sport beeg culture beeg yëpp yi nga xam ne day accompagner étudiants yi ci seen euh, espace universitaire euh, loolu nag yombul parce que ku nekk da koy xool ci sa bopp déjà ci sunu famille yi ñu nekk lekk pour que benn waajur assuré ko 100 pour cent ci ñetti ñetti repas mu mel na mu war a mel sax daa jafe doom doom yi nga jur ñu nekk ñaar wala ñett waxatuma nag étudiants yi ñu toll ci 86000 étudiants. donc mun a yomb. mënut a yomb te mënut a mel nañ ko bëggee 100 pour cent. Mm-hmm. ba bu set li ci am solo rek mooy muy lekk bi muy dëkkuwaay bi muy paj bi luñ ca man suñu kéem lay kattan ñu ngi koy def pour que véritablement étudiant bi man au moins nekk ci jàmm nekk nekkinam baax. ba mu mën di dem di jàng di wàcc. waaw ah, di concentré wu surtout. parce que quand boo xiifee moom xiif ak jàng àndul. justement waaw boo wérula wéru wéradi ak jàng tamit dafa àndul. voilà justement xam nga loolu nguur gi daf ko comprendre ba xam ne. mënoon nañu ne étudiants yi dangay ngay ñëw jàng université ñibbi mais xam ne ne njàng surtout njàng universitaire enseignement supérieur dafa laaj un environnement dafa laaj étudiant bi wala boo ki koy def nekk ci benn environnement bu koy permettre loolu man a yomb ci moom moo waral logement bi sorewul campus pédagogique xale bi day dem jàngi wàcc waaye comme tu dis njàng métti na métti boo xam ne bii mm. boo bëggee jàng ba pare la war ci wàllu social defuñ ko na mu waree day métti donc moo tax ñu créé centre des œuvres universitaires muy kër goo xam ne gii wax dëgg yàlla nag ku ko gis xam ne yombul parce que nombre bi dafa bari mais lépp lu ñu man ci wàllu góorgóorlu pour que étudiants yi sentir seen bopp ne seen kër la ñu nekk sentir seen bopp na seen i ñi leen yor ne seen wayjur wala loolu leen a taxaw ca kër yeeg boobu taxawaay lañ am loolu loolu la ñuy jéem te yaakaar naa yàlla mu ñu ci suturaal. macha allah macha allah yal na yàlla mottali tali euh, alors monsieur le maire euh, comme xam nañ ne aussi yow yaay maire Malicounda alors gis nañ ne récemment inauguré nga fa benn gare routière à hauteur de un milliard loolu la ñu loolu la ñu jot ci ay information gis nañ ne tamit ba tey euh, sa sa sa sa fief moom moo abrité benn hôtel bu bees bu ñu euh, inauguré yàggul dara alors est-ce que mën nga ñu expliquer un peu. waaw commune Malicounda nag euh, déet yi commune bu Sénégal xam tey waaw parce que véritablement yaakaar naa ne yàggul waaye jot nañ faa def réalisation yu bari yu ñu may ñu am une certaine visibilité. yi nga tudd nii mooy yi ci mujj waaye ñun depuis sept ans wax dëgg yàlla mën nañu am ñaar wala ñetti weer yoo xam ne inauguré wuñu lu am solo loo xam ne ni Sénégal yëpp yëg nañ ko ñu ciy sant yàlla nag du sunu sax xereñ ak yooyu mais population bi yëpp a ci jàpp conseil municipal bi jàpp ci yàlla suturaal ñu ba loolu mën a nekk ba li ci mujj muy gare routière bi nga tudd pour un coût d'un milliard mais préciser ne dafa am gare routière am station service donc benn promoteur moo ñëw ñu mettre à disposition suuf duñ ko jox en contrepartie mu defaral ñu gare routière defaral ñu centre commercial donc boo jëlee gare routière beeg centre commercial bi plus la station service package boobu yëpp mooy 1 milliard muy investissement bu am solo boo xam ne bii def nañ ko ci biir commune te commune bi dugalu ci 1 franc. Hmm. mais partenariat la rek boo xam ne bi dañ ko def ay ay promoteurs. Hmm. Euh, barke démb aussi président Sall ñëw inauguré hôtel bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest gën a rëy ci Sénégal parce que bu paree dina doon 1022 chambres. aujourd'hui ah. mi ngi ci 522 chambres. Hmm. ma xamal boo jëlee yëpp. mille et quelques chambres la donc ñu am ñun benn hôtel boo xam ne bii muy Riu première phase bi nekk 522 chambres ñu inauguré ko ba commencé na fonctionner depuis le 9 le 9 avril maa ngi doon woo démb rek euh, le patron de l'hôtel mu ne ma actuellement ils sont à 350 clients ah donc nekkul voilà <laughs> nekkul euh, donc hôtel bu ndaw hôtel bu mag la. Mm. boo xam ne bii vraiment ci vision président Macky Sall réalisé euh, réalisé nañ ko foofu avec l' de de promoteurs je crois que muy doon loo xam ne di njëlbeen la waaye yeneen hôtel ak yeneen ak yeneen. daañu ci topp dinañ ñëw dinañ ñëw euh, jërëjëf monsieur le maire alors chers téléspectateurs xam ngeen ne nag à chaque fois suñu demee seeti suñu ay invité vraiment dañ leen di indil ay teraanga ku ci mel ni Mixwell meew Mixwell nag nee naa leen meew bu am solo la ngay ñëw defar rek daal di naan vraiment mu mën na accompagner durant toute la journée lépp lu nga xamante ne euh, da koy soxla vraiment ci euh, vitamine wala protéine euh, meew boobu dala koy jox vraiment te fépp ngeen am ci Sénégal am na fa ginnaaw loolu aussi am nañ li nga xamante ne mooy vraiment benn gaam boo xamante ne gaamkat yi la ko tuddee gaamkat yi boobu nag lépp a ngi ci biir dox dajale mais ñun ñu ci gën a intéressé mooy bouillonkat yi bouillonkat yi nag nee naa leen day eh, safal sa cin balaa ngay suur rek seppi balaa ngay suur daal ci sànni bouillonkat yi vraiment da koy jox gu ba pare eh, def ko ceeb boo xamante ne ah ku ko lekk daal di kontaan donc bouillonkat yi ngi noonu. huile chef Aïda aussi moom eh, vraiment ci partenaires yi la bokk moom nee naa leen diwlin bu mucc ayib la bu ñu enrichi aussi en plusieurs vitamines donc mi ngi noonu am na bu mag am na bu ndaw am na vraiment fépp foo dem ci Sénégal da ko fay fekk huile chef Aïda daal accessible alors bu ñu paree ci loolu aussi dañuy jàll ci ki nga xamante ne mooy euh, Astec Astec nag lépp lu jëm euh, ci wàllum électroménager moom moo fi teg tànk vraiment lépp rek lu kenn soxla ci wàllum jumtukaay kër muy euh, congélateur réfrigérateur climatiseur ak cuisine américaine sax dañ koy def donc micro-ondes lépp daal luy jëm ci wàllum kër rek te ñu koy yittewoo Astec moo leen ko fi indil euh, pour faciliter euh, faciliter li nga xamante ne mooy seen dundin bu ñu paree ci loolu aussi dañuy jàll ci Free Free nag nee naa leen dafa indi lu am solo Free euh, sama calpe Free donc da ngeen di dem dugg ci li nga xamante ne mooy App Store wala li nga xamante ne mooy. Apple Store nga daal di euh, télécharger li nga xamante ne mooy application boobu ngay mën di jot wala di yónnee xaalis nu mu la neexee te li ci gën a neex aussi mooy euh, dañu génne vraiment euh, def benn promotion Ramadan bu am solo nee nañ dañuy jàpp ci suukaru koor yi ndax soo defee li nga xamante ne mooy dièse sant dièse nga jënd ci connexion connexion bi nag mi ngi commencé à partir de 500 donc loo fa jënd rek. Euh, da ngay bokk ci tirage au sort boo xamante ne euh, tous les jours dañ koy amal ñu daal di tànn dix personnes dix personnes yooyu nag dañ leen di may vingt cinq mille jaarale ko ci sa euh, calpe free rek donc loolu yëpp free moo leen ko indil. alors di remercier sponsors yi nga xamante ne ñoo ñu accompagner ci émission ziar alors monsieur le maire gis nga tey vraiment cadeau yi teraanga yi lañ la indil. di ci bëgg lool parce que teranga yu am solo la di jaajëfal seen partenaires yi di permettre à ce que émission bi am mhm. en tout cas di leen euh, remercier di leen féliciter bu baax jërëjëf jërëjëf euh, monsieur le maire alors avant que ñuy tàggoo rek euh, tey ban laaj nga bëggoon jagleel oustaz waaw oustaz boobu maa ngi koy jaajëfal bu baax ci taxawaayam ñëpp apprécier ko ci pédagogie am ci démarche am donc li ma koy laaj rek mooy boo wooree ba ngoon maanaam xam nga ñun am embouteillage Dakar bi ak ni mu méttee léeg-léeg yàlla nattu la heure ndogu jot fekk yaa ngi ci oto fekk xëy na prévoir ko amoo tàndarma amoo ndox amoo dara est-ce que nit mën na dog ci xelam. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyai wal mursalin sayidina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ñu ngi bëgg lool ci fekk si fi fii sunu soppe bi nga xamante ni bii moom mooy Hadj Maguette seen di monsieur le maire di ko ñaanal yàlla bu baax cër yi nga xamante ne bii président wóolu na ko ba dénk ko ko yàlla na ko ci yàlla defal ay ndam yu kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni laaj na laaj bu am solo mooy ñi nga xamante ni bii koor daf leen di fekk ci yoon dog jot amuñu tàndarma amuñu ndox foofu nag da ngay yëg yow jullit bi ci saase ni sa koor jeex na fii la koor gi yem bu fekkente ni bii am nga loo dogee sa koor nga dog ko bu fekkee amoo ko nag da ngay bàyyi ba am ko nga daal di koy jëfandikoo waaye luñ la tegoon ci bëccëgu weeru koor ni la boo wooree doo ko def jàppal ni bi nu noddee timis rek teggil nañ la loolu lekk gi nag ci yow lay dépendre saa yoo wàccee ba dem sa kër wala nga dajeeg ku la mën a jox loo dogee sa koor wala loo lekk parce que koor gi moom jeex na su boobaa nga daal di koy jël ci saa si jëfandikoo ko waaye limite bañ la mayoon wala délai bañ la mayoon ni la lii ba fii doo fi lekk doo fi naan doo fi def nangam na nga xam ne loolu moom teggeeku na ci sa kaw yow jullit bi nag yaay bàyyi ba am loo jëfandikoo nga daal di koy jëfandikoo yàlla nañu yàlla may dégg gu ànd ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf oustaz alors euh, monsieur le maire dégg nga lii la oustaz tontu nga waaw di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal seen directeur général Youssou Ndour di suñu xarit voilà di jaajëfal waa GFM yëpp ba bari fi ay xarit lool waaye di jaajëfal nag euh, étudiants yi seen taxawaay di jaajëfal euh, commune Malicounda yëpp muy population Malicounda ak département de Mbour di jaajëfal euh, jullit yi di leen ndokkeel ci weeru koor gi di ñaan yàlla nañ ko jeexal ci jàmm ak salaam. amiin salaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf monsieur le maire yow it ci disponibilité bi ak dalal bi ñu dalal voilà chers téléspectateurs li lañ leen indiloon tey ci seen émission ziar. vraiment di am contentement chaque fois ñu fiy teew di leen proposer ay invités ngeen ci ànd ak ñun aussi di remercier ñëpp fàttewuñu kenn vraiment di leen jox rendez-vous euh, demain incha allah ak beneen invité au revoir.